pépin bokkuñu dara xam nga yàlla day bind ñaar te yàlla ndeysaan daf ñoo jël rek bind ñu man ak moom du ñuy roo rek. waa léegi noo gisee prestation Krépin sa nduroo waale ci Coupe d'Afrique waaw macha allah di ko yokk jom ndax euh, ku am jom la ku am jom la ku am fula la macha allah yàlla gëm na ko te def tamit di ko mu jëm kanam incha allah. ñu koy séntoo fu sori. waa léegi looy digal gaynde ci final gi jëm. ah ñu gën a fas jom yokk jom rek am fula ak fayda yàlla moom gëmul nelawul waaw di gën a ñaan tamit gars def si fula rek incha allah ñu gagné ko nag Sénégal macha allah ñun ñëpp ñu fete a merci beaucoup.